jéggi na si yoon wàcc na jël a ngi dóor ci na di leen jaajëfalaat bu baax yéen ñi ñuy topp à chaque fois ci Leewtoo TV seen émission Leewtoo ak nii lay def saa su ne leen day toog ak champion bu ne ndaa naan bu ne daal di waxtaan ak moom ci lépp lu soxal làmb balaa may ñëw ci làmb ji nag dama am sama sponsor numéro un di Uri moom mi nga xam ne moom laa taamu askanu Sénégal yëpp daal di koy taamu ah mu indi leen pat indi leen ataaya indi leen diwlin Jador sans cholestérol ànd ceeg eau Kayar ndox bi gën ci ndox yi nee naa leen oyof na bu tàngee neex bu seddee neex comme ni ko Mbaye Babacar di waxee comme ni ma leen ko digtalee sànq rek beneen daanaan laa invité di kan aada Fass xale fas ba xale bi nga xamante ne bu jógee ndakaaru jóg bu jógee Fass bennoo daal di jóg aada Fass dama leen nuyu la bàyyi nga nuyu internet yi jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf Cheikh Mor Bamba Xaadimu Rasuul doon ak Aliou Souba Krapal maa leen nuyu di leen fay nag Ada la comme ni ma ko waxee sama invité ci émission Leewtoo ak Ada Fass mënoon xam kañ nga dugg ci làmb. maa ngi dugg ci làmb ñaata combat am. naa 9 combat. sept victoire moo la daan. Thiatou Baye Bata ak Ondou Lofou. Ondou Lofou kan nga daan. li ma daan. rek li woon kenn rek. waaw Yiri de. Mhm. Dorma ay ay Thiatou Ngewel. Mhm. waaw Bébé Bismi ay raw mhm. ay aro bëri ñu ma daan bëri na. nga daa bëri na macha allah palmarès bi rafet na comme ni ngeen ko déggee noonu ku dugg ci làmb lu ne da am na lu dox nga dugg da dugg ci làmb. kan mooy sa idole Ada. man sama idole Lac moo tax ma dugg si làmb Lac Rose mbër. waaw dafa doon dama ko bëggoon bu ma nekkee xale. Mhm. dama doon jàng école ma wàccee rek dem liggéey Fass boobu antenne maa ngi may dem di ko seetaan boobu euh, mhm. la gën ba tax nga def ko idole. j'attaque je cogne et je gagne bu muy wax chaque jour. mbaa loolu mu ngi ci yow xam man man sama combat yëpp rek man xaw ma réglé. Mm-hmm. xaw ma ko sax. Mm-hmm. nga dugg ci làmb am nga ci bés yu neex am nga ci bés yu naqari lan moo la gën a marqué ci sa carrière aada. kon. sa carrière làmb ah. lan moo la ci gën a marqué. kon lu ma jugee rek waa Fass yëpp jug. Mm-hmm. xam ne loolu noonu yàggoon la. te suñuy maam daan ko def. ñu leer ba ñu sëtee di ko def. waaw ah, loolu daf may neex sama kër bu làmb mhm. muy noonu nag ku dund la neex di nga am loolu naqar yi ba nga duggee ci làmb ak léegi est-ce am nga ci ay regret waaw am naa ci bu bu métti mooy lan bu métti kon defe ci rek te loolu lu mun ta ñàkk la mhm. ban defet bi moo la gën a métti ah sama ñaar defet yëpp métti na moom mais dina boo ci xam ne da ngeen xam ne carrément bii du woon jour ñàkk man maa def li tax ma ñàkk ñaari jour yëpp du doon jour ñàkk mais suñu balaa ñoo ñëw ci sa defet yooyu rek ñu gis fusion bi am entre Fass ak Ndakaaru ndax nga gisee fusion boobu. waaw loolu bu rafet la ndaxte ñun ay doomu Ndakaaru lañu Fass ak Ndakaaru bu gaay bu ko gaay defee benn loolu dañ si dañ si dañ koy rafetlu. Mhm. Fass Ndakaaru daal di wu nekk benn yow nga nekk écurie Fass bennoo est-ce que envisage nga benn jour écurie ñetti écurie yooyu nekk benn ponc. waaw mooy écurie Fass mooy écurie Fass bennoo. écurie Fass mooy université bi Fass bennoo mooy. photo kii mooy collège bi ndaxte écrit Fass lépp Fass benn la ñun Fass lañ màggee mu ngi noonu nag ci benn boobu noonu yan relation nga am ak yeneen mbër yi nekk fi Dakar Fass yëpp waaw ñu ngi sekk jàmm bu baax ndaxte suñu ñoom samay grand lañ man mhm. Ada Fass xale bu ndaw la waaw sama bis grand yëpp laay gis ñu taxaw na di leen ñaanal yàlla ñoom ñëpp ci noonu na balaa ñuy ñëw sa combat ki nga xamante ne nii mooy Tapha Mbeur rek nga am ak Onde la Fou ñëpp jàpp ne loolu escalier la woon benn garab gu daanu lañ tegal ki nga xam ne mooy Ada Fass ngir mu yéeg dem ci cour des grands nga lanc ci ba nga ci lancee ban jëg-jëg nga ci am. déggoo ma loolu mënul woon ñàkk la rek suñu carrière te bis boobu ak suñu borom loolu la ko mënuloon demee daal na fay bis boobu soxla woon nañ ko trop trop trop mais Ada Fass lu am rek am na lu ko waral da nga nekk jeune nekk xale yaakaar ne lu ñëw taxaw sa kanam rek da ko war a fëx jàll ba tax na combat ba mag lañ ci ñu bari dañoo ne Ada Fass dafa jàppoon kii di Onde le Fou jar jàll la daal ban nga yaakaar moom nga def ci làmb jooju ba ñàkk ko. ah foogu de jeunesse la xam nga rek jàpp nañ rek làmb ji ko seen bu nga ñëw daal di daan kii di bis bindoo jël bu amul benn wérante macha allah ñëpp daal di apprécier làmb jooju ba nga ci jógee. ba nga ci jógee nga am nga xamante ni mooy Tapha Mbeur xale parcelle ba xale bi nga xamante ne nii bu jógee su waxee nga ne déedéet su bëree nga ne déedéet su bàqoo nga ne déedéet naka ngay waajalee bis boobu. pare rek ñu moom toujours pare amul lu ñuy xalaat keneen ak keneen la ñuy pare waaw di ñaan yàlla yàlla yàlla yàlla yow si ja jàmm si bis bi. Mhm. waaw suñu borom jaar ko fu mu. sama caméra bi. suñu borom jaar ko fu mu jaar morom leneen. eh leketu kese naxul bay Ada Fass Tapha nga am xale bu saf sàpp lan nga ko yóbbante xool sama caméra. damay damaa ne bu jour ba incha xam nga fa Ada kii Tapha Mbeur bu baax xam nga ko bu baax yaa ngi koy jàng. yàlla bu baax na. amul ya ta xoolal wuy ma ñun tooguñu ci plateau bi ndax yàlla baax na yàlla baax na ñëpp xam nañ ko Tapha Mbeur nga am xale bu sob te nee ci yow yaay escalier ci yow lay defee examen am jàll. loo gis mais doomu Dakar yow yaa ngi wax sànq doomu Dakar Ada moo fi toog dafa mbër moo fi toogul moo tax léegi moom moom la ñuy jéem a wax indi li mu wax rek. lu tax mu jug dem doomu Dakar kenn toogu moom. lu képp ku jug da fay. nga gis. nga ak moom est yaa ngi koy jàng di xool lu mu mënee ak lu mu mënee wut. yàlla baax na pare nañ yaa ngi déedéet ban sama loolu du ma nangu yaa ngi xool yaa ngi xool Tapha Mbeur di xool li mu mëne. ah jànguñu si moom dara. lu tax loolu. non mënuñu ko mënuñu jàng si moom dara. nekk si ñun ne xaaj bi nekkul si moom te bis ba allah dina leer nañ. <laughs> Ada Fass wax ji daa wax ji da ngaa ragal booy bi wala. Ah, boo ko ragalee moom ragal la Tapha Mbeur nee na daal dugg ci biir daal lëlu entraîné ba wow koŋŋ ndax yow moom xam na ne. du yow yaay nekk ki koy téye yow nga ne jàngoo ci aada Tapha Mbeur dara. jàngoo ci moom dara dafa loolu ñun loolu ñun dañoo banku boobu toog di dëxañu di liggéey lu métti ba léegi teguñu suñu tànk ci ci loolu boobu noonu tegi woo sa tànk ñaata ñaata séquence d' ngi ngay def par jour. séquence d' entraînement yooyu nag mais na ko si ay tëralaat ñaata <laughs> séance d'entraînement nga def par jour pas pour ñun mais supporter Ada Fass nga xam ñu ngi taxaw di xaar Ada Fass di xool ci lan la nekk. chaque heure ñu ngi gis Ada Fass mu ngi sol tenue entraînement dem entraînement chaque heure. Mhm. ñaata séance d'entraînement nga def par jour. benn wala ñaar wala ñett wala ñeent. <laughs> gis dama loolu duma ci xel ci noonu nag nga war a bëree premier jour Iba Mar mu mel sax yaay nekk mbër yi yu koy ubbi yaa ngi nga xam mooy dafa mbër ndax ngay waajalee mobilisation yi. di waaj rek kon dab di wax Baye yëpp kon ñu ko doon waajee bi moom dama bëgg ñu waaj lu raaw ndaxte Dakar bi yëpp jeune jeune jeune jeune ñoo ngi waaj làmb ji tamit mooy loolu di waaj gën waaj waaw di woo ñëpp tamit waaw nga nekk xale nekk Ndakaaru Ada Fass bu jógee da yaakaar ne sax mbër bu mag moo jug ndax bu jógee lii topp ci ginnaam dafa bari naka nga def ba link boobu doon Baye rek ab taalibe quoi waaw ay Baay Faal ay Baay Faal wasaare voilà loolu noonu moom mooy Baay Faal yi ñoom moom loo leen jox rek ñu delloo la ko waaw di wax nag gars yi gën a jàpp rek incha allah yàlla ba ci noonu nag beneen combat bu mag bu daal di am fee ca Fass Gris Bordeaux ak Balla Gaye numéro 2 naka nga gisee combat boobu. ndam rek ñun moom toujours ndam Fass lañ tëgg ñun hors Fass ñu yoon nekk ndam rek incha allah. ala giri bi. combat royal cëppaa ndaw ga bi dox ci diggante sëll bu ndaw ba ca Pikine ak Modou xarañ loo ba ca Parcelles Assainies nga nekk jeune nekk xale noo gisee combat boobu. waaw combat boobu lu war a neex la ndaxte combat boobu ñoom dañoo war a bëre ñaar ñooñu ndaxte instant bi dañooy càppaan coole bi waaw lu gaa yëpp di war ñoo ko yor moo moo la woyal saa a jël mhm. war a fële fayal rek lu ñu rek waaw ñu gën ñu gën a suñu bopp. ñu bañ a layam layam waaw ñu bañ a layam layam. <laughs> mu ngi noonu nag dama koy kontaanee bu baax Ada Fass laa invité woon ah ci Leewtoo ak Ada Fass looy tàggatoo waaw di wax di gërëm ñëpp rek di gërëm sama doom ndey mu xaar mu fi la sama coach la sama waay la sama lépp la di gërëm sama booy sama fiyaa bi ñëpp su sama baay faal bi tamit jàmbaar bi ma ngi baax sama baay faal bi Ibra tamit ñoom sama gaa yëpp waa waalo sama yaay du maa ngi woon ñëpp si combat bi waa Fuuta Kayoor Pout Joal Casamance Kolda ñëpp maa andi woo incha mu ngi noonu nag Ada Fass la woon ah Ada Fass Leewtoo ak dama koy kontaanee bu baax di ko jaajëfal di ko remercier bu baax a baax a baax di leen jaajëfal sama équipe technique bi ah. ma fi yàggal tàpp bi ah sama wool ñëpp bis ma nga am de. moto yëpp. na engrais yëpp tàpp incha allah bis boobu suñu bis la te incha allah rabi bu ñu duggee Iba Mar mhm. xam ne suñu bis la si kattan suñu. mu ngi noonu nag Ada Fass moo woote borom Fass Benno di ko kontaane bu baax di ko remercier ci disponibilité bi en ah, di ko ñaanal jàmm ju bëree bëri combat bi mu jëm nag moom ma gën a xam na liggéey moromam liggéey après ñu bëreel ñu bëre bu neex bañ faa nekk di layam layami sama équipe bi dama koy bëggee bu baax faama sama caméra woman bi merci beaucoup moom moo maane sama chauffeur bi damay kontaan ci moom bu baax a baax ah Mansour bëgg naa ci yow mention spéciale Adja fi Ndiaye sama njaayeen bi bëgg naa ci moom lool lool lool lool di gërëm équipe technique Leewtoo TV cat ba cat ñëpp leen jox dig daje ëllëg incha allah beneen champion ak Leewtoo ak incha allah jaajëf ñoom ñaar jéggi na si yoon wàcc na jël na Tapha Tine dóor na Tapha ngi dóor ci suuf attention Sa ñoom ñaar xeex nañu ñoom ñaar xeex nañu attention kaw Sa Thiès Boy daan na